اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا مبكي باخو توك سين بي احمديه تي في نولين نوي بو باخ ديلن زياره ديلن بال حق تا ديلن بال نيان يالا سبحانه وتعالى يبولين جيغل نياتا جيج سين ايميسيون بي ني واخ كفار حاج سفار رضي الله عنه يفدون جانغ تجويد دون سكون ديكو تي تيري بي ني واخ تحفه الاطفال bind bu ñu mujj woon jàng ñu ngi doon jàng xukmu laami al wa laami fiil attey laamu al alif ak laam maanaam ak laam boo xam dafay ñëw ci fiil laamu al buñ ko waxee mooy laamu taarif ci lañ ko gën a xamee maa alif ak laam bi nga xam ne moom mooy dugg ci ism keroog jàngoon nañ ko boo xoon ni ñaari xaaj la dafa am ñuy wax al alchamsiya ak benn wax bu ñuy wax al alqamariya al alchamsiya mooy alif ak laam bi nga xam ne bu ñëwé xarf bi ci top da ngay gis ñu shidda ñu ko shidda loolu lu muy tekki moy alif bi dañ ko idgaame ci alif bob comme ni joxoon ci misal lu melni ash-shams boo xoolee ci alquran wa shamsi wa duhaha kën du wax wal shamsi da ngay gis ñu bind alif ak lam wa shamsi da ngay gis ñu bind alif ak lam waye ànd ak ni buñ ko bindé kën du ko jàng tax dañ ko idgaame ci ci shin bi moo tax loolu leroon nañ ko bind ñu baas dañuy fatali rek ها بنن بي موي ال القمريه ال القمريه موي ال بيغا خامني حرف بي تي توبو آه، لام بي الف بي كين ديكو تي ادغام دنج كاي اظهار معناها الف اك لام بي دنج كاي جان لو ملني القمر ملني اقتربت الساعه وانشق القمر القمر يس القمر دنجي غيسني الف بي دنج كو ماس ها واي الشمس موم دنجي غيسني الف بي كان ماس و دنجي شين بي شده bu ko defee kon xukmu laami al lañ waxoon attey laamu al kon mooy al taarif mooy ñaari ak ku ci nekk ñi ma àndaloon wala min fiil beneen bi mooy laam bi nga xam ne moom mooy ñëw ci fiil fekkee laamu al moom ci ism rek lay jëm loolu pour ñi nga xam ne xam nañ tuur ci ci lugatul arabiya ci naxwu danañ ko xam waaye boo gisee ci alquran rek comme ni ñu ko leeralee keroog foo gisee xaraf ñëw alif ak laam xaraf bi topp ñu shidda ko xamal ni kenn du ko jàngee al da ngay jël al bi nga idgham ko ci xar bi ci topp bu fekkee nag xar bi ci topp kenn shiddaw ko xamal ni dañuy jàng al bi mooy dañ koy maas léegi beneen laam bi ñëw mooy laamul fiil laamul fiil mu ne wa adhiranna laama fiilin mutlaqa fi naxwi qul naam wa qulna waltaqa xam nga bu fekkee al taarif bi ñu jàngoon léegi-léegi dañ koy idhaar kon lu mel ni al qamar lu mel ni al xaaqa ah ليه ليه بدنا نقول ادغام؟ بملني الشمس بملني الطامه ويفكر اللام الفعل نجمه ما يكون اسم فوت اللام نيبي منا نكني اظهاركو منا نكني ادغام وليه فعل نجمه بدنا كوي اظهار من واظهرن نغا اظهار نجا جانج جانج بوير مفين. لا ما فعل الف كلام بيغا خم دفن يوجي فعل مطلقا بومتي من تدول مطلقا بوغا خير مو خم فعل ماض له ولا فعل مضارع له ولا فعل امر ففين امر نتي بومتي من تنيو نكوي اظهار في نحو قل نعم بخولك قل فعل امر له دنا عندي مثال فله قل نعم قسنا نعم، قل نعم قل نعم عندك نلام كات موك نون سين جن واي فني جن جيغنا لول واي تخول نك ñu jël لام بي ادغام ko ci noon قل نعم كان ديك wax قل نعم ولا ملني قلنا قسنا قلنا نعم، فوق فعل ماضي له قلنا قسنا نعم، نون أغلب fu ñuy génnee jege na lool waaye taxul ñuy devoir ndax fiil la moo tax lu mel ni waltaqaa iltiqaa tamit fiil maadin la bu xoolee laam bi ak taa bi fi ñuy génnee jege na lool bu fekkoon ni ci ism la dañ koy idgaam dañ koy idgaam ah waaye fekkee fiil la rek kenn du ko idgaam iltiqaa ñëw ci misaal boo ñëwee ci alquran di nga fekk benn saar buñ naan suratu takaatur boo ñëwee lu mu commencé alhaakumu takaatur الهاكم اسم فعل ماض له الها الهاكم يعني ليك الها جسنا دنجا جس لامبي نكو يماس نكو إظهار كم كم دكو إدغار لمن اللي فالتقى من اللي فالتقى الماء ها فالتقى الماء جسنا عندك من اللامبي تا ما تطبو ويتخل نيو إدغار نكو إظهار تخفي على ولمن أرسلنا إنا أرسلنا نوحا gis nga arsalna gis nga lam bi mi ngi ñëwaat feeñ fii nuun dafa bokkoon ci xuruf yi nga xam ne bu fekkee alif ak lam da leen jiitu ñu idgaam ko ci ism waaye bu fekkee ci fiil la kenn du ko idgaam arsalna nga ñëw ci mudaari lu mel ni yaltaqituhu yaltaqituhu ah yaltaqituhu baadu sayyaara nga lam baa ngi nii taa topp na ci mais taxul ñu idgaam ko dañ koy idhaar ndax fiil la mutlaqan ji mu waxoon moo tax mutlaqan mutlaqan bu mu ci mënti doon ماضي نانجي جسنا لينكو إظهار مضارع نجي لينكو إظهار بنان بي ما أمر بنان فعل آه، مضارع مثال من يتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ها ولم يك فعل الأمر من اللي قل من اللي قل نعم بني وهلاجي ولمن وألقي ألقي فألقي عصاك جسنجا ولمن فجعل فجعل أفئدة من الناس كن جسنجا كن فعل نيت فعل ينخني ما أمر شعرب bu ñëwé ci alquran fu ci al ñëwé fek al bi dañ ko sukkoon al bi dañ ko koo nek nekkul fu ñëwé rek dañ ko wara a nak fek al bi dañ ko sukkoon xamal ni kenn du ko idgham dañ koy idhaar légui mu ñëwaat ci alquran mu ne la alquran alif ak lam juróom mo ci am benn bi jàng nañ xoma ñaari bi njëkk mooy alu taarif mooy bi nga xam ne mooy ñëw ci isma xam moom lañ séddale woon muy alqamariya ak alchamsiya jangan nañ al bi nga xamne mom moy ñëw ci fi'l benen al bi mooy al bi nga xamne ne dafay ñëw nek lamul amr ñëw ci lamul amr lamul amr buñu defé moy lamun sakinatun zaidatun an binyati al kalima lam la bo xamne bu ñewé dañ koy sukun waye zaid day doon manam lam bi dafa ko ci binyati al kalima manam baat bi cosaanam lam bi bokku jo woon dafa ñëw ko ci تدخل على الفعل المضارع فوق فك نكتب فعل مضارع لا فلا بد ان يسبقها واو او فاء او ثم لامبو فوق فك بين تي حروفي مكو جيت بين واو جيتكو ولا فاء جيتكو ولا ثم جيتكو بو فكي ثم شي مثال بو سوره الحج دا فك يالا نان ثم ليقضوا روايه حفص ثم ليقضوا فكي ورشة دينا قسمو كسرة كمان ثم ليقضوا لجان حفص كم بني جان تجويد سلي سكنكو وطح مثال من لنجي ثم ليقضوا دينا قس نقوي ماس سكون ثم ليقضوا نحراب بتان بلي وخب بي سكون ها ثم ليقطع فليذهبن قسنا ثم ليقطع قسنا كم مو عرب بتان بلي بات وخم تي سكون

faa bi ñëw dugg ñu sukkoon lam bi faltaqum ah bu fekkee ne waaw daf koo jiit lu mel ni wal yuufu ah wal yuufu nudurahum li yuufu gis nga laam bi dañ koo sukkoon waaw bi moo ko jiitu moo tax laam bi dañu tuddee laamul amri laam laam bu ñu ko waxee mooy laam boo xam ne day digte day digle li yuufu nañu matal li yaqta na dog li yam dud na mëdd ma na tàll na dimbaliku ah wal yatawafu li yatawafu la woon gis nga wal yatawafu waaw bi ñëw ñu sukun laam bi laam bi xam dafay firnde ni li muy tegtale mooy dafay digle wal yatawafu gis nga mooy nañu wër wa xukmaha laamam moom nag laam bi nga xam ne laamul amr la lii atteem mooy al idhaaru mutlaqan fu mu ñëwee dañ koy idhaar laamul amri fu mu ñëwee dañ koy idhaar beneen lam bi muy ñeenteel lam muy laamul ism laamul ism buñ ko waxee moom laamun saakinat al asliya laam la bu ñu sukkoon boo xam ne cosaan lay doon ci baat bi xam nga laamul amri zaida la mais bu fekkee laamul ismi nag moom asliya lay doon boo ko nag alif boo ko nag al taarif nag al taarif lii ngay am da ngay am alif am laam mais laam bii nag moom comme bii lay doon alif sax du ko jiitu ah tuujadu fi l asma اسمي رك لنكو ولا تكون الا متوسطه فوق فك تي ديغ بات لاي نيك مثال ملي السناتكم من اياته خلق السماوات والارض واختلاف السناتكم جسم السناتكم لا ماغي ني نيو تي ديغ بات ها السنا موي لامي والوانكم غيسنا الوان لامبي تي ديغ ها ولا لي سلطان جسم ها سلطان اسم له لامن يعرفين تدقي مام تميت وحكمها لي أتم الإظهار مطلقا فوق فك لنك إظهار الحرف بوش من تتوب السنة تكم بنكوا ألوانكم لام بس احنا كجاك بوكو تحرف يا خم بنكوي إظهار سلطان كندكوا بنكوي إظهار سلطان بنكوا بتي مجموعي لام الحرف لام الحرف مام لام ساكنة موجودة في حرف لم لا بو دفا سكون فوج كو فك تي حرف لا ولا ولم تقع في القران الا حرفين القران نياري باتي رك نياري حرف رك مو تي نيو با بري ام لام لام بو سكون موي هل اك بال بو ني حرف نك لغه العربيه دفا ام لي ني واخ اسم موي تور لب لي تكتل تور فعل موي لب لي تكتل جف حرف نك موي لو خامنا امول معنى mom pour mu am maanaa il faut mu dugg ci ism wala mu dugg ci harf wala mu dugg ci fi'l afan alquran ñaari harf yi ñoo ci ñëw am lam bo xam dañ ko sukkoon muy hal ak bal bo jele misal lu melni hal tarabbasuna qul hal tarabbasuna bina ha wala lu mel bal hum mom tamit di atté moy al idhar atté moy dañ koy idhar mutlaqan al idhar بمطلقا صح دنجكو اظهار فوق نيي دنجكو اظهار بامو ديس بو فكيني را دا تي توپ ولا لام بو تي را توپي لو ملي قر ربي قر ربي دنجا جيسني ديدت بر ربي ولا برانا فصح كيلا برانا مونيتي بوك نخ برانا مم استثناء لك بوك نينكو بنني بايكو gis nga kon mom nga xam bu fekke lam daf cee top dañ koy idgham lu melni halaka halaka lam bi moo ci topp ah laam bi dañ ko sukkoon benen lam ñëw dañ ko jàng moy suñu dog suñu bind bi di ñëw maaye mën nañ ci laal tuti rek gis nga lam ñaari lam bu ñu dajee benn lam bi sukkoon dañ koy jël dugal ko ci beneen laam lu melni halaka wal wala lu mel ni bal lamma yaduqu bal ma gis nga bal ak lam ma bu ñew ñom ñaar bu ñu dajee ben lam bi dañ koy éliminer bàyyi fi benn lam wala lu mel ni raa topp ci parce que ñoom ñoom ñaar dañoo bokk fu ñuy génnee moo tax moo tax ñu idgham bu fekkee raa moo ci topp laam ak raa dañoo jegeente fu ñuy génnee lu mel ni bal rafaahu llah kenn du wax bal rafaahu llah bal rafaahu llah nga loolu moom may am benn baat boo xam dama koo fàtte bi muy leeral ism mooy xul xul bu fekkee raa dafee topp ah laam boobu kenn du ko idhaar dañ ko idgham lu mel ni qul rabbi gis nga laam fii ñëw na dañ ko waroon sukun mais raa bi topp ci moo tax làmb bi dañ ko idgham ci raa bi moo tax kenn du jàng qul rabbi qul rabbi lañ jàng waaye bal bu fekkee nag dina ñëw benn ci alquran ci benn benn barab boo xam ni day ñëw ñu sukun ko waaye ànd ak loolu raa topp ci mais kenn du ko idgham lu mel ni mooy kallaa barraana bi nga xam ne moo ñëw ci suratu al mutaffifin bu fekkee da ngay jàng riwaayu xafs alquran daa am lu ñu tuddee sakt sakt mooy noppi noppi boo xam ne amul noyyi comme lu mel ni boo jàng suratul qiyaama boo jàng kallaa ida balagati taraqi da nga di nga dégg kii jàng mu ne wa qiila man raaq loolu la ñuy tuddee sakt Gis nga man roc normalement lii idgham la woon jàng bi ñu jàng idgham leer nañ ci noonu sakina ah yarmalun marraaq la ñu waroon jàng mais sakt bi muy def fii moo tax dootul def idgham wa qiila man raaq loolu it mooy ñëwaat ci barraana kalla bal raana ala qulubihim سكت إذا دفع وجوب لما أنا ده واتبوا يجان رواية حفص كن يون كلا برانا على قلوبه فكي ين رواية بمن يورش نك مم مم دف سكت دين يورك جانكم مدف من فك حفص دين جان كلا بل رانا ولمن وقيل من راق أم ين ياري وقت سكت يوحني نبات نجرى حفص كن بني تنك بقي لول ما يدينا خني مم مين يون تحكم لا مئل أكلام الفعل لا مؤل نيا خاتلة نفع أم بيوخ اللام القمري موي لام بيغا خامني دنج كوي اظهار الف اك لام بيغا خامني فوك نينتي حرف تنكون نانكو من ابغ حجك وخف عقيمه ها نعم موي فوك نينتي يوي بنين بي فمو نيوي دنج كوي ادغام موي لان طيب ثم صل الرحمن تفوز ذا نعم دع سوء ظن ذو شريفا للكرم بيت بوب خامني حرف بني بيم كومانسي حرف لا جي خامني نفكو ورا ادغام بنن بموي لام الفعل لام الفعل موم تي نيت فعل لي مو فعل ماضي نا فعل مضارع فعل الامر فمو نيوي موم لي اتي موي دنج كو اظهار فعل ماضي نقيس قيس الهاكم فالتقى ارسلنا فعل آه، مضارع ام يلتقط ام يتوكل فعل ام ام قل ام القي ام فجعل واي قل بو فكاني را داتي توك كوكو نا موبا دنج كوي ادغام قل ربي ولا من bu fekkee laam yi dacee topp tamit laam ci la bokk laam bu fekkee dafa topp ci xul tamit dañ koy idgaam mook ñaam yi daanaka ñu ñoo bokk laam bu ci toppee tamit dañ koy idgaam ah beneen bi mooy laamul amri laamul amri mooy bépp laam boo xam day tegtale ak digle ak digle waaye moom ci chart bu ñëw ci alquran benn ci ñetti xarf yi moo koy jiitu benn waaw moo ko jiitu wala thumma wala faa bu ko waaw jiitoo lu mel ni wal yuufu wala lu mel ni wal yatawafu فك ثم ململي ثم ليقضوا ململي ثم ليقطع وفك فموكو جيت لملي آه، فليمدد ها اك لملي فلتقم ها ديغا خامني موكو مودجيل موي لام الحرف لام الحرف تي نياري حرف رك لاي امي موي هل اك بل نياري حرف يي نيو نيو تي القران ام لام بو خام دنجكو سكون نيوم نياار لي سن اتي لام الاسم دا بوكو تبد ها لام الامر موم لي اتي موي إظهار مطلقا لام الاسم موم تاميت تي اسم رك لا نيو فوكو فك تي اسم بي تي ديغ بات بي لا نيو لو ملني السيناتيكوم ملني الوانكم لو ملني سلطان لي اتي موم تامي موي اظهار مطلقا فوكو فك دنج اظهار بي موج موي لام الحرف لام حرف موي نيار حرف ييغا خاني يوني تي القران ام لام بو خام دنج كو سكون موي هل اك بال نيوم نيار لي سن اتي موي دنج كو اظهار فوم مون دي لودول ني لام دا تي توپ ولا ملني را توپ تي bu ci laam toppee wala ra dañ koy idgham waaye nag nga génne ci ne bal raana bokku ci kooku moom dañ koy dañ ciy def sakt kon mën nañ taxaw foofu incha allah bu ko defee bind ñëw ñu daal di dugg ci al idgham idgham yal na yàlla defal dégg toog jaar sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leen di fàttali koo xam ne am na ci laaj ci liñ doon jàng xaw lënt mën na envoyé message whatsapp ci numéro bi affiché wala mu bind ci commentaire bu ko defee bu ñëwee darsi bi di ñëw tontu ci doogoo jàll ci beneen leçon bi yàlla na yàlla def ñu dégg ak topp jaar sallallahu alayhi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalaamu aleykum wa rahmatullah Ahmadiyya, Yes Indeed, Jamal. Ahmadiyya, la vision future.